إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني سدد لساني نور جناني safi Amani wazir baray barke borom Touba kon mbok yi nga xamantene ne yéen ñuy xel ñu ngi leen di wax alaykum wa rahmatullahi taala wa euh ñu leen ko waxe won rek say bu ñu rek dinañ leen amal ay euh lepp nak ngir wone rek njàngaleb serigne bi waye nak di fi dalal ay boromi xam-xam ak i ngir mën a dund ak yéen màggal gi nga xamante ne moom la sëriñ bi woote tey nag maa ngi fi am ñaari gan yoo xamante ne tey moom maanaam bés bi dafa dafa dafa spécial si man ndax dama boole ñaar ñoo xamante ne kenn ku ci nekk rek da ngay roy sëñ boole ba noppiit maanaam soppal sëñ boole di leen dalal kon loolu mel ne ne eh, sëriñ bi am na lu mu ci namm kon laata may yaatal rek mbokk yi damay jox sëriñ Modou Dia ndax it ñoom ñaar ñëpp sëñ Modou lañ tudd taw fekkoo gën cee amati kon damay jox sëriñ Modou Dia moom it mu yëkkati ci xasida yi bu noppee nuyoo su daanelee nag ñu jox sëriñ Modou Mbacke moom it incha allah mu nuyoo kon bismillah sëñ Modou Dia. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم بركة الذي الوجود والخدم حد وجبال لنات من خدم بركة الذي الوجود والخدم حد وجبال لنات من خدم بركة اللذ الوجود والخدم خطوة جبال ولنا تنمي القدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من خاد لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالنفس وجب لحوا إلى كلية قاد العجب الحمد لله تعالى وحد كما له الخمسة والوحدة لمن له القدرة والإرادة والحلم مع يأتي العبادة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع حياة العبادة لمن له القدرة والإرادة والحلم مع حياة العبادة لمن له السمع كما له البشر مع الكلام كل شيء ونذر هو تعالى قادر مريد عالم حين والفريد الله ربنا دميع وبزير ومتكلم وجاد بقصور لم ينو عدم ولا حدوث ولا فناء للذي منه الحديث رب الورى لزلو تمازل ولا ابتغار بل هم ما حمدي لباخ جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد ملكنا لم يضن عز أو كرى هت له وليس ينكرى أحمد من جهل وموت وصمم لم تنهه وقد كفاني الخمم نفعني الذي عمن وبكم لم ينحيا لوني ملكم إيجاد كل ممكن والترك أجز لمن كفى كفلا شركا لا رب خيره سواه خني له افتخر من عداه رسولنا نبينا محمد عبد الرسول مهتمى الصمد حما وسق بأمانة جزب لو بتمليخ إلينا عن كذب يقود من خيانة وكما حرم خدمتي لها من خدمة يقود من قيادة وكان ما حرم قمتي لعاب قنما محمد بشر من له القدم كرسله مقدما كنت قدم ربك رب العزة عما يقول وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين أبي أبرم توا ترجف ترجف سرين مولو تي خاص دغو ام سولو بيغا خامتاني موم غو اوبي كون دا لاي باي رك نيوك بوك ييغا خامتاني نيغي باي خيل سين تيليفزيون غالاكسي تي في ان شاء الله غا نيوك نيوم بسم الله اغي آه، جيرجف سيرين توبا جيرجف سيرين توبا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 وصلواته على اتهامه وآله وصحبه القدام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوغي نوي مبولم جلد يب تي نوي مبولم كليفة دين يب أكليفة آدهي دي زيار تي توب بباخ وآي دي جيتل تي بأك زيار بي القليفة العام للتائفة المريدية سيخ محمد المنطقة مام بسيرو nekkal fi sëriñ Touba ñu ngi koy nuyu ba ziar te itam di jël ziar bi di ko teg ci loxoom ngir ak képp koo xamante si nii bokk na ak moom sëriñ bi waaye taalibe yëpp rek di ko ñaanal sunu boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko fi lool ba lii nga xamante si nii yéene na ko ngir liggéeyale ko maamam ju tedd jooju Serigne Touba sunu borom dimbali ko te kàttanal ko. ba lepp lo xamanteni ni bëgg na mu and ko ak taalibe yëpp ñu am ci lu kawé suñu njort di sante nak di sante yalla bu baaxa baaxa baax ci katanal gim ñu katanal ak ci ndimbalem gim ñu may ba sa su nek ñu jema ci lu baax di ci jema dox di ci jema def suñu kem katan di ñaan sunu borom bàyyeenu ak sunu bëgg ta sore nu saytaane ba lepp lo xamanteni bëgg nañ ko ñu nit ci liggéey bi rek suñu borom defal na ko ci di ci sant bu baax a baax nag ci jataay bi nga xamante si nii ñu ngi koy amal fii ci dëkk bu sell bi di Touba waaye tamit ci bis bu tedd bi rawatina weer wi tey nag tombeek 17 safar maanaam suba insha allahu taala la bis bi nga xamante si nii mooy bis bu màgg bi kon dafay firndeel na rek ne jataay bi jataay bu màgg la jataay boo xamante si ni ñun ñii di ko def bàyyi nañ ko xel bu baax ànd ci nag ak waa Galaxy TV di ci sant mbooleem techniciens yi wala ñi nga xamante si nii ñëpp ñu ngi ciy liggéey di ñaan sunu borom tamit dimbali leen kàttanal leen te yëkkati leen bu baax a baax a baax di am mbégte bu baax nag Baye Dame ci jataay bi waaye rawatina sunu mbokk mi nga xam ne moom lañ àndal muy mu Modou di ku baax di koo xamante si ni TikTok bi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci njàngum mag ñi ak njàngum sëriñ boole comme ni nga ko waxee léegi jataay bi li mu làmbool bari na lool ndax ku xam sëriñ boole mbay xam ne am na cër bu baax ci yoon bi am na cërit ci njàngim bu baax mboolem jànkatu xasida yëpp bàyyi dañ ko xel waaye rawatina ñun ñi nga xamante si nii dem nañ ba ci moom yëgal ko ne ko am na yéene topp sa ginnaaw ba may nu ci ndigal ba ñaanal ñu ci loolu saa suñu toogee ci jataay dañuy jakarlo ak kaddu yoy kon momit dama koy beral nuyo diko ziaré bu baakha baax tay itam di ñaan sun bokk ko fi may ko fanu bu baakha baax ndax mom ak yagam fi ñu suñu la kon daal ñi ngi sante bu baakha baax di gëreem nit kep ko xamanteni si ni yaa ngi xel émission bi di wax nañu sun borom defal ndam defal ñu ci ak dégg ak ak top waaye di di di di sant daal bu baax di wax ne dañu doon nuyoo rek xam naa dañu taxawlu foofu ba kàddu bi ñëwaat. incha allahu taala jërëjëf Baye Dame. jërëjëf sëriñ Modou ci nuyoo bu am solo bi waaye bu matale bi eh, kon dañuy jox rek sëriñ Modou Mbacke bu ko defee yow it nga yëkkati ci xasida yi boo noppee nga nuyoo mbokk yi nga xamante ne yéen ñooy teewlu seen émission waajal màggal bi waaye jaare ko ci télé bu mag bi di Galas TV kon bisimilah.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 بركات قوله تبارك وتعالى وقد آتيناك من واجهني على العلي في رقاده وانتباهي وعادتي واعتقادي واجهني على العلي في رقاده وانتباهي كعادتي واعتقادي قاد لي ذكر مالك علم غيبي من عليم له عيالي أنادي ديني يا دحر حب ذكر حكيم صان دوري وصان مجلس نادي آي ربي نفى لخير العين وكفني ذوي الشقاء والعناد إن تلوت الكتاب حثت ثوابا عاصما من يوم ينادي المنادي ترس عمري عن الأذى ذكر ربي عند نومي وجلستي واستنادي يعصم الله للجنان حياتي في انتباهي وعادتي واعتقادي نضع لي صحاح خير البرايا قارئا خادما بصفو ودادي أحاديث النبي أنت خليلي وحبيبي وجوت لي بسدادي كنت لي يا حديث خير رسول الله بلساني ومرقمي ومدادي ما اعترتني السكوك بعد يقين بك لي نور مالك ذو امتدادي نذع لي مع الكتاب صحاح نورت كالكلي وصفت ودادي بارك بارك جزاك جرجف سرين مودو مباكي Euh, ci ubbi gi nga xamante ne moom it bu am solo mu ubbee ko xaside gi kon dañ lay sant bu baax a baax a baax sëriñ Modou kon ñu jublu sëriñ Modou Dia euh, bu ko defee sëñ Modou nga présenté wu rek ci tënk rek la ñuy wax portrait nga xamante ne ñi lay déglu dinañ xam sëriñ Modou fii la tàmbalee am njàngam waaye fii la jaar ak fii ci ab tënk bu gàtt rek bu ko defee nag nga soog a barkeeluwaat beneen xasida incha allah. macha allah jërëjëf seigne Baye badam, ñi hmm. nga am ñi nga amane mbégte bu baax ci jotaay bi di ci santaat yalla bu baax waye di bek ci xaside gi nga xamanteni seigne Modou yëkkati nako lay mu nekk xaside gu am solo waye mu jang ko ci jangene bu am solo tay itam ñew lool wax deug yalla di konya ñaanal suñu borom sam ko bu baax seigne Modou ja boole nak mhm. naqari wu ta xam mhm. ndax ba mu juddoo yagut te itam defu fi lu nit defut mhm. maanaam defu defagu fi lu yéem kenn kon kooku du jafee xam mhm. ci tënk nag dañuy wax ne mu ngi judd 1996 2005 ci la dem daara ngir wattu ji alxuraan 2012 mhm. yàlla dogal ñu mokkal ko ba bind ko ba ñibbisi bi ñu ñëwee nag suñ borom dogal na ci ñun ñu dem jàng ji xam-xam gëstu ci tuuti lu tolloog ñaari at biñ fa jógee dem jàng ji métier muy métier mii ñu nekk di métier téyër nga xam ne moom lañ moom lañ booleeg njàngum xasida mii ndax njàngum xasida mënuñu ko bàyyi ginnaaw ba ñuy tuut tànk ba léegi ñoo ngi ci mën nañ ne dañoo xàmmee rek nekk ci waaye nag doonutoon comme lii ñuy def nga xam ne moom lañ no xamee ba nga xam ne ku xam Modou Bollé rek da ngay xam ne jàngkatub xasida la waaye dafa am ku muy roy moo waral tur woowu ñëw waaye Modou jam mooy suñu tur kon njàngum rajas mi xëy na moom ci lañ nekk waaye doonut loo xam ne moom lañ njëkkee ndax comme ni ma la ko waxee léegi rek bi ñu xàmmee lañ bokkoon ca kuréel bu ñuy wax Nuurul Absaar ba léegi nii ñoo ngi ci nekk ci kuréel 1 bi te yàlla dogal ñu nekkoon ca ba ñuy tuut tànk ba léegi doon ca doxal ci kuréel waaye suñ borom dogal ci 2020 jàpp mille 2021 ñu amoon yëg-yëgu mhm. dugg ci njàngum rajes ndax ngir jàpp ne wax dëgg yàlla ab cër la boo xamante si ni képp ku koy def mhm. euh, yàgg nañoo dégg ni ci nettali ñu ne képp ku koy def dañ laa tànn ngir nga di ko def mhm. waaye yombut ndax ku ne xam na ko nit bëgg na ko lool te mënu koo def nit tamit mën na ko lool te def ko kon loolu tànneef la ñu ciy sant yàlla bu baax atum 2020 ci laa dem kër Serigne Bolle Mbaye euh, bisub ajjuma xamal ko ne ko cofeel gi ñu am ci yow rëy na lool lépp yit ngir jëmmi sëriñ Touba ak yàlla kase ndax moom yàlla rek moo nekk ci moom ku gis ni muy doxee ni muy waxee ni muy jàngee nga xam ne kii dara àdduna ni ci moom ginnaaw bi ñu ko xamalee loolu it mu jox ñu ndigal ne loolu moom moomu ko noonu la ko waxee man njàng mi moom ma ko xasida yi moom ma ko kon képp koo xamante si nii da ngaa jug ngir topp sama ginnaaw loolu dama la koy dama ci sant noonu la ko waxee dama ciy sant bi ñu ci joxee ndigal it ñaanal ñu ci bu baax jox ñu ci ay leçon yoo xam ne ba léegi nii mën a gut a jeex saa su nekk heure buñ xëyee dañuy yër waxam ju tedd jooju waxam ju màgg jooju kon daal ci gàttal képp koo xamante si nii yaa ngi topp sunum njàng di ñu bëggee foo man di nekk na nga jàpp ne fii la ëppee buñ ko buñ ko xamee ak buñ xamul jëmm jooju nañ yëg ne cofeel gi ak bëgg gi fii la ëppee ci ñun képp koo xamante si ni tamit yaa nga nuy safoo te di ñu tiitaroo te xamoo it fan la ñu féete wala ci lu nekk na nga jàpp ne ci lii rek lañ nekk génnuñ ci lii liggéey jaamu yàlla moom la sëñ bi santaane woon ñi ko jiitu it te doon ay nit ñu baax loolu la ñu santaane woon kon ñun ci loolu rek lañ nekk ñoo ngi dëkkee nag fii ci Touba dëkk bu sell bi waaye ci gox bu tedd bee nga xam ne sëñ Modou Faa Jamañang képp ku ko xam xam ne ci bokkoon na ci mag yi àndoon ak sëriñ bi goxam bee di këriñang fa la ñu juddoo fa la ñu yaroo mësuñu faa génn ba nii ñu toll nii kon daal bàyyi bu ñu bëggoon a xam ne kan mooy sëñ Modou ja boole ci kàddu yooyu yaakaar naa manees na koo xamee noonu macha allah ñu jégalu bu baax baax jërëjëf sëriñ Modou ja ci leeral bu am solo boobu kon dañ lay bàyyi nga yëkkatiwaat ci xasida yi soo daanelee nag ñu jox micro bi Serigne Modou Mbacke moom it ñu wéyal ak moom ci wàllu waxtaan kon bismillah أعوذ بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واجعل ما كتبته في ربيع الأول فرح خير البصر بقبضي المبشرين وقابني ببشري من ربه المفضل فرح خير البشر بقبطي المبشرين وقادني ببشري من ربه المفضل يقود رب العالمين لي بخير العالمين سر الكتاب بالأمين وكان لي بالأفضل رسولنا محمد صلى عليه السمدون مع سلام يحمد وصف بالمفضل رسولنا محمد صلى عليه السمد مع سلام يحمد وصف بالمفضل بركة الماحي الولي ظانت ربيع الأول بالمالك المخول مغني ضب التفضل يسر أحمد المكين قد الذي له ركون له كمالي سكون لمن كفاني معدلي على النبي خير الأنعام صلاة عالي عمنام به هداني ذا اغتنام ورقب وخدلي كسلاة صلاة وسلام رمت من الباقي السلام لزي جوامع الكلام أحمد نور الكملي للمنتقى المؤملي ما حلف المجملي من المجملين سلامي المكملين أزكى سلامي سلورا على جميل صورا مخدما منورا خير الولى المضمرين وجه النبي الأفيض يخجل بدرا في يدي وللعلي به يدي مدت نلت عملي ود الرسول المنتخى زه سعنا نارا تطخى لغير مالي ينتقى وليرم عملي للمصطفى المبشر بقطي المبشر ما خادني ببشري من العلي المفضل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 نورا منورا تالعا في ربه الأول فرها خير المرسلين بقطي المعسلين وسألني عن كسلي بالمحو عني كضريب مطهرها خير المرسلين بقتي المعسلين وصانني عن كسلي بالمعب عني كدري يخود لي خير رسول am tebu tebu rek jangam jangam rabbi yaam bii mu jàng ak njàngam mu bari boo ko kiiwut da ngay jàpp ne moo ko jàng waaye daa am ci mag ñum jaar suñ donga ci moo gën a fees ci ci ci ci ci mag ñum jaar moo tax waaye man tëbuma tëb rek roy suñ boole ñi ma jaar ñoo bari ci am njàng dama cee jaar mag ñu baree baree bari ku mel ni siñ siise عنان وجدت لله دن وهو كرمني بالمصطفى وبه ليجاد بالأمن عجلت لله دن وهو كرمني بالمصطفى وبه لجاد بالأمان عجت لله حمدا وهو كرماني بالمصطفى وبه لجاد بالأمان إن رسول الله سيف يستداء به مهند من سوء في العز من علي نجا رسول الذي ما مثله بزار نجندي فوزو بالله مفروض وسنيني نظامة سنة البيداء كاسبات عني سلام وزا بل غلبك البداني maanaam mag ñi la mag ñi maanaam Sëñ Tuubaa dama dimbali ma ma wan mag ñi am na sama benn waaye bu naan Moustapha Moustapha Thiam dama ma rombee dana sëriñ polyvalent. <laughs> waaw waaw lan la may tooñee. Ah, moo tax naan sëriñ polyvalent. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. maa mag ñi moom. suñ tubaab dama dimbali amul kenn ci ñoom. koo xam ne mën naa la bëgg naa la roy mënuma laa roy. ba ci ñii doog a génn ñii nii doog a génn. ñu mel ni Moussa Ñankul Ibrahima Guèye. sëñ Jil Dramé xam nga ko. keroog dañoo toog ci jumaa ji man ak moom di jàng. muy jangga am jangam ma jang jàng ñun ñaa ñëpp ñu koy mu tok ba ci yag mu da tok daj ni loxo bi tan mbak walla man ma ko mbaa mu nak ma maa jaaxal uh-huh. ma ne ko nu ma la jaxale mu dan ne man mi waxe jang ya ma dak ndaysan eskay wala ak taw la wax lol dana man mi ko doon jàng yaa ma ko dàq mm-hmm. Mm-hmm. moo ma am problème roy problème roy ken ndaysan ah bu la yàlla dimbalee nga mën roy kii mën roy kii mën roy kii da ngay am problème. Mm-hmm, mm-hmm. ñi ma ñi ma jiitu ci suñ boole moo bëri. waaye nag suñ boole. Mm-hmm. li ma dugal ci moom mooy. am njàngam mu sell la. maxaarijul xorof yeeg waaw ah, suñ boole boo koy roy foofu nga mën maxaarijul xorof. lu mel ni ataaba sëñ bi xes gi mu doon jàng farexa xayrol ba sooy maam bu koy wax da ngay xam ni kii dégg na suñ boole bu ñuy jeexal dama xamul nag da ngeen koy joxante waaye bëgg naa moom ngeen def benn duo bu am solo boo xamante ne ci daajub sëñ boole la amaa kii bu jëlee benn xàbb kii fekk si ko ci xàbb boobu insha allah rabbi euh, xam naa ne loolu boo amee dina neex ñi nga xamante ne ñooy bàyyi xel incha allah seen télévision Galaxy TV kon mën ngaa wéyale sëñ Modou مرامي عند الله أخي سرمدا بجاه الذي أعلاه أعني محمدا حصوني عن الأعداء والنار والبلاء ثنائي على من ذا عبد الرحمن مدادي وقلامي لربي وللنبي أجادي بها من أخلص السعي حمدا متى ما أعد للمال والصدق قادما يجد بالمنى والعود ما دال أحمدا دعاء سجف بالمصطفى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسعاي واحمدا بارك برمتوا ما شاء الله سنبولو man daal xam naa ne jotaay bi tey moom yéem na ma kon dañuy dellu si ci Serigne Modou ja bu ko defee Serigne Modou euh, mel na ne roy sëriñ boole xaw naa jafe ndax ñu néew sax ngay gis ñuy roy ki nga xamante ne mooy Serigne Bollé li ko waral nag mooy li ma wax sànq ci maxaarijul xuruf yeeg njàng mi nga xamante ne lenn lu si nekk dafa war a àgg te am baat bu jàppandi bu koy àggale rawatina ci ay ondulation yi nga xam ne mooy cat yi ndax loolu sëriñ Modou Dia euh, yomb na lool lool lool lool bi soobu di roy suñ boole. waaw jërëjëf suñ Baye Dame mhm. ci laaj bu am solo boobu nga xam ne ñun ñi ci suñ jëmmi bopp sax mhm. bàyyi nañ ko xel bu baax mhm. ndax sëriñ boole comme ni nga ko waxee rek dafa bokk ci jàngkat yi nga xam ne ñoo gën a naqaree roy mhm. ci am njàng mhm. ndax am njàngam lim dajale daa bari mhm. bi ma ci gën a intéressé nag mooy dal gi ndax dafa daf cee bokk te daanaka daf cee néew am lu ci bokk ba noppi néew ci nag man dama ciy xaw a tiit te am njàng dafa a am ànd ak dal te suñ boole man dal gi dama yéem yéem na keneen ku dul moom yéem na keneen ku man kon ndax ñun comme ni ma ko xamee ni la ko ñëpp xamee mën naa toog ci jataay jàng ba jóg te du sensé toogin wala du siggi xool feet fenn loolu suñ borom def na ko ci moom loolu bokk na ci point yi nga xamante si ni mën nañ koo wax ci naqaree roy gi mu naqaree roy bi ci tegee mooy xaside yi façon njàng bi mu koy jàng nga xam ne maxaarij bi day leer naññ ba noppi it ay yàqam néew ku néew ay yàq la moom sëñ boole maxaarij bi nag man bettuma ci moom ndax ab sëriñ daara la di jàngale alxuraan ba noppi fonk alxuraan ji lool lim mokkalal ci ay doomu aadama kenn mënu koo wàññi waaw man rek li ma ci xam xaw ma nu mu toll waxuma laa li ma ci xamut kon kooku buñ na laa maam bu doon jàng xasida ñu ne la ab sëriñ daara la doo ko wetti war ma ci a gis nañ ko gën a yéeme loolu ba tey naqaree roy bi mooy moom am na mag ñum daan roy ku mel ne sëñ Mbaye Diop ci la bokkoon ak euh, sëriñ euh, si daaju daaju daaju sëñ Aliou sëñ Aliou sëñ Baye xam ne li mun si li dinaay waddaay boobu ñeneen ak ñeneen ci mag ñi ñoo xamante si nii ràññiku nañ lool ak moom bi comme ni mu ko waxe mu da ngay da xam ne Mhm. kon kii nii dafa am yoon wum jaar mhm. yow mi nga xamante si nii dangaa topp ci ginnaawam mhm. faaw nga am yoon woo jaar moo tax ñun ñii di ko roy man boog personnellement sonn naa ci lool bu fekkente ne am naa ci dara it yëguma ko yëguma ko te itam ñi ngi ci ba tey te jàpp nañ ne demagun ci fenn man saa su nekk saa su ma xëyee dafay jàpp ne suñ bolle gi suñ bolle mbay amaguma ci un pour cent man lool lay japp waaw loolu yi nag yaakaar naa sax moy limay dimbali ndax suñ boole bok nañ ay jotaay yu bari man ak mom yalla dimbali ma ci momit ba amut lenn lo xamanteni si nii yanqaadu lil muxtaaru man qaada alkiraam قبل كد من براء رفع أو الرافع رفعا فاقا وقلد الصفاء والوفاقا أمداح قاد لنا صلاة والأمن والتوفيق والفلاح حسن سعادة بمن بالوراء خلق من قاد إليه سورا نفع النبي القديم كسفا وحبه أغمى قديم عشفا أنا لولا الجميع مستا علي تسليما من خير جاء <laughs> kawe na lool daanaka gars moom am na fu ñu àggoon moom ah. ma nekk yéeme na lool ci xeeti njàng mi nga xam ne moom nga koy jànge kon sëñ Modou ngir njëkkanteek waxtu wi rek dañ lay bàyyi yawit nga dugg ci lenn ci daaju sëriñ boole bu ko defee ñu mën a wéyale bismillah sëñ Modou وإني أعزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مادات السياتين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأقوى جلائك تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرم بياسي لمداي وبصروا بها وجميع عيباي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين أطاب للمن مر كالأوتان باخ ناظني من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن وبرحيم المالك الأزمان فتعما سمات الفتاة لمصطفى سمات المفتاح بان لكل من له زلاه أن امتداء المصطفى فلا وآيات عمد والكتب من أوحى إليهم ثم البرايا والزمن نبينا الماحي محا كل عنا كما خبل منا متزن محمد صلى عليه ذو الخدم تزر مني دوام الخدم أحمدنا المختار كفضرر لخير نحوي أبدا والخررا أبقى سلام ربنا المقدم هل الرسول والنبي المخدم إن ابن عبد الله فخلق الخلق جميع درجة وخلقا تسليم رب العالمين سرمدا على أجل العالمين أحمدا يمن ابن عبد الله خاد البركات لسكنات الأسفياء والحركات داب بالقاسم نور الصدور تنوير مخزل السموس والبدور ينقاد للمختار من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع رافع رفا فاخا وخلد السفا والوفاقا أمداه خاد لنا الصلاة ولمن والتوفيق والفلاح عزنا سعادة بمن به الورى خلق من غاد إليه سورا نفع النبي للخديم كسفا وابو أخنا الخديم عن صفا أنا لولا جميع مساء عليه تسليم أو من خير انتهاء كتابه فوق جميع الكتب ومثله فيما مدى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربي بسول تعن عبد الله فاق كل من خلق يخلق النزيس من إليه تنعو الأنبياء والرسل يوم تقدم سواه ويغسل حوى الشفاعة التي عنا جز سواه في اليوم الذي الوعد نجز محمد صلى عليه لا وأفضل ما خلقه مولاه نور النبي زعزع السلامة ورزه قد زعزع الملامة فرخان فرخ بيني أبدا خبل وبين كل من لم يعبدا شكرت ربي بنزل ونزام مع نبي ولي قاد لزام نفع رسول الله سينة مدر ليبان هند آل برد وعذر خاد لي المطار ما لخاد من ربي بربي فانخاد عبادتي لمن مع الفتونة وخاد لي بالمنتقى المتونة رسولنا أحمد قدرا بربي قل يا فسرا لن خاد من خاد بي لينكم بالمنتقى الذي اجل العقم سبحان من فضل خير مرسلي أحمدنا على جميع رسلي أبى الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى ونورى سلام رب العزيز وسلات على الذي لا نبي الخلات فادت قلامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كباني من عضد فادت قلامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من عدد يسر الله بخدمة المكين كل عسير عاده كن فيكون واجاني الجميل بالبسار في خدمة المطارس الإشعار صلاة العرض العظيم وسلام على نبي المنتقى الماحي الملام سنت لربي مع الماء سنين عبادة صواب ومالنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما قدم تاب علي توبة قد قسلت ربي هيوبي بالنبي فانقسلت شكرت على النبي معدسا مخاد لي ما خاد لي بعدسا ضادني الباقي بجاي راخي ما خادني لشكر بالأوراق دعني النعم لسكوري بمر عبس الورى شكوري جميل مد لا يزال بشرى سرا وجهرا للنبي البشرى شيء الحمد لله jotaay bi moom dana yéeme lool waaye nag noonu la ñuy wéyalee rek yéen mbokk yi nga xamante ne yéen ñuy bàyyi xel seen télévision Galaxy TV di leen wax ne bés bu nekk nii lañuy amale ay jotaay ngir ñi nga xamante ne amoon nañ yéene teew ci màggal gi te jàppandiwuñu ñuy mën di leen dëggal rawatina nag di ko jaaree ci chaîne bu mag bi di Galaxy TV kon sëñ Modou Mbacke xam naa ci yow lañuy ñuy dellusiwaat rek. muy lan nga ñu indilaat it ci lenn li nga xamante ne moo jëm ci daaj suñ boole bismillah sëriñ Modou alhamdulillahi wa salla abada ala lazi bihi lana nuda abada sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi tawil wali هذا وإن اليوم سوء توسلي لو بأسماء ذوي تفضلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي بي تجيب وبني الذي هذا يا كريم وقبل من بي يناجي ما يروم ربي بناء وبإبراهيم مالق ذنوب ربي رجيما وكن بموزا وبجايزا وقيني دنيا وأخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم لياب إيمانا قد ذهب الإسلام والإحسان بغرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان النورين وبعلي والد سبتين أبلي في الدنيا يا ما أخرايا النور والنور والمسايا بحق تاتا سبيري وحق سعد من ديري وبسيد وامنعوا في نجني من كل ما خافوا من فذلي وبأبي ويذل ما يبيد إلى جنابي عني ما يبيد باقي عبد الله نجل الأمي أي ولد العباد كثر المي باقي عبد الله نجل أمراه عني كتابا ما يجر ضررا وبالمسعود محمد وجاء ابن سلام خن البلاء ودرعني والكلام يا ربنا بحرمة العباس وامسدنا نكفي كل باس بحرمة الحسن والحسين جني في دارين في النورين بحرمة القاسم ثم دائري سب سوائر يا مدمائري مطل طيب إبراهيم أدم علي المسر والتكريم بجاه فاتمة عبد نفسي عن كل ما يجرني لعزي وبرقية وبين بفني أتد والإجاب كل ثمي وأمني دنيا وأغرى بكرم بأم كلثوم وجن نقم بأوزن بن عامر الغرمي واق مسروق دقب الكلم وبربي وبجاه نسبتي أبلي سقامة وقوم مودي بأمير بن عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولاني جلي بالقفان وساده والعلم والعمل والعبادة بلا سني البدر أملي الورى والانزلاق من نوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبسعيب وبجل بن عوال وتاتر بل واسقني من داي سرا وجهلا بعبد الله بعرمة المقداد ثم قالد وبزبيري أولني مقادري وبأمير المؤمنين عمرا خني مكا وسقا وقررا باقي قائد المجاهدين علي الذي آن دينا باقي زاد وباقي عروة زني تمسكا بوثقى عروة بحرمة القاسم ثم دارجة سني يقف المتبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله ثني فن المال وتناي تناي وبسليمان خني كيد اللعين وكيد خيري وكل يمين بيومنا قد جرنا من الأمل في العلم والأدب ربي والأمل بأمنا عائسة قل ما يدرني في الأرضين والسماء بأمنا وسد البين وبين وبينما يجر سوى ونكد بأمنا بين بذي ما ذامني وما بدن وجني وزد بمالك وزابي وابي أنيبة وامدا سجبي بجاه جبريل سجب سؤالي وبلغني مبلغ رجالي بجاه ميكائيل بن نعمة ونبي بثقين الكرما بجاه أذابي لا بن اسمه ولتك أوال يوم القمة بجاه أدرائيل كل يا جميل تلا ياتي بعد بدنيل وجد وسني لمن يدوبي ساد داري واغفر لي بي ولي يجد وللذي داني لنسبي بالأمن ورضواني وبسادته وبرماية عن جملة الأسماء والإناية وبالنجاة من سائر العذاب وسكرات الموت ربي والإزاب وبالبزارات وبسرور عند مماتنا وفي النسور وسلم وسلما على النبي وآله ما سيا بنجبيه واغفر لوالدي واغفر لجميع آلي وجملتي سياب يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا وحقق سادتي يا ربيا والتفنا وقونا وكلنا وابلنا حسن القتال ربنا وسليا على النبي وسلم واقض بي حاجة كل مسلم للمنتقى للمنتقى للمنتقى للمنتقى ولا لواس بالكرام أو سلسلامك وجني بالمرام jërëjëf Serigne Modou Mbacké ci xasida googu di Tuhfatul Mutadari'in ci njàng mu am solo boobu nga xamante ne moom ko jàng kon dañuy wax euh, ganu goo xamante ne wax rek nga ko mën a teralee moom noo mën a def rek danga koy bàyyi mu yaatal ndax sëriñ bi wax na ne waxam jiikat wala xasidaam yi suñu borom wax wax na ne ko mboolem lu dul alquran ak xasida rek wax ji mu ko gën a féete kaw kon dañ lay bàyyi sëñ Modou nga gën yaatal rek ci xasida yi bu ko defee nag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 صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما خاتم من خال إن الأمانة أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكره الأمين لكلكلي وجسدي أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخال ذكره الأمين لكلكلي وجسدي ناديت سلعا العظيم بالحب مع دور النسيم ولي كان بعظيم وصانني دينا قد def te مكو amul benn jotaay bu may dem te yëgu ko su ma ko jotee faw mu yëg ko ma doog caa dem loolu suñu borom dimbali na ma ci moom ba ndigal loolu ma am ko ci moom kon liñ mën a wax ci loolu mooy ñun sonn nañ ci lool te di yaakaar naa duñ jug ci di ci sonn ndax barakatu bi ma doon jàng bokk na ci ancien yi mu jàng te bu toll bu toogoon fii léegi bu jàngee barakatu duñ bokk yëg-yëg lay jànge li ma yor ci ay barakatoom ëpp na fukk te benn bokk ci kon man li may dimbali mooy dama ciy jël benn benn barakat rek loolu mooy li lay dimbali ataaba masrabu saafi ax naa ni yàlla yeneen ak yeneen yu baree bari dama koy jël répété ko man li tax ma sonn ci sëñ bolle mooy damay copier coller moo tax maanaam jëluma sama sama yoonu bopp rek di way fee di di sëggal fii damay déglu comme ni mu ko jànge ma jànge ko noonu man noonu laa koy royee ba noppi moom rek lay roy mosuma jàng njàngum keneen ku dut maam ma Mandiaye te yaakaar naa xarnu bi la te dañ ci doon barkeelu mu mel ne sax biñ ci dugalee tuuti ñu bari doon nañu laaj àggale bi waaye yàlla dogal na ba léegi àggale wuñ ko ndax ñun kenn lañ ñu xamee te li may ñaan mooy suñu borom bàyyi ma ak kooku waaw ñu bañ a topp rek xumbaayu àddina ba nga xam ne lu génn rek dañ ci laal man doxewu ma noonu daal ci gàttal.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 من كان في حضار أو كان في صفار الحمد لله حمول الحبس والصفار من كان في حضار أو كان في صفار الحمد لله حمول الحبس والصفار من كان في حضر أو كان في الصفار ثم الصلاة بتسليم يخار على الذي مدحه أعياض بالفكار محمد صيد الداعي والرواسات المصطفى المتبى صافي من الكبار ذاك الكريم الذي ما زال منتقبا من أفضل الناس موسى أنزع ذو الغدار ند كريم سليل من كريم سليل من كرام قيار سعادة عثور ندم كريم سليل من كريم سليل من كرام قيار سادة العذور قد سفي من شراف ما أتى عاب منهم بفاحشة تروى عن الأشاري بل كل حم نكاح لا سفاح كما حكى ذو العلم والعرفان في سيار محمد نجل عبد الله من نصبوا لشيبة الحمل نجلي حازم الوزار وهو ابن عبد مناف بن خزي وزار كم كلاب من مرة مقي القبر وهو ابن كعب سليلا للوين ذاك مخالب نجل فهر الضمير وهو ابن مالك المعروف منتسبا لنظر نجل كنانة مقي الفجار وذاك نجل خزيمة من مدركات سليل إلياس من ما إلى مضاري وذاك نجل نزار من ماديم سليل عدنان ذا المحفوس في الغبار وهو الحبيب الذي من أجله قلقت خلاي خلايك العماك والبشر وكالسماوات والأرض نخاتبة هو البر والبحر مثل الريح والصدار وهكذا الجن أيضا مع بايميا وكالجمادات مثل النبت والحجار من نور حين كل نور ساتع بسنا نور النجوم ونور الشمس والقمر من نوره كل نور ساتع بسنا نور النجوم ونور الخمط والخمر من نوره كل نور ساتع بسنا نور النجوم ونور الصمت والخمار وهو القياس الذي من أجله رعمت خلائق الله بالإنسان المطار وهو الكريم الذي لولا حمايته لجاءت النار أحلى الكفر بالشرار وهو الحليم الذي لولا تسبره لتب من دون حرب كل بتاره وهو السجاع الذي لولا سجاعته لما خذ اليوم أعلو الخير في سفاره وهو المعين الذي لولا معونته لزار أهل الحدى في الخسر والخوار وهو الذي سجدت سرح له وشكا له بعير شكات نقل للدراري وهو الذي جاءه ظبي يكلمه والضب كلمه تكليم معتبير وهو الذي انشق تصديقا له خمر والجس حن له تسريت ذي عذري وهو الذي مجفه خلبير وارتفعت مياهه كارتفاع الموج في الغبار وهو الذي لا زال دار مادياه حرصا على ذكر ما قد عاد من زياره وهو الذي لا عزال دعر مادياه حرصا على ذكر ما قد عاد من سياره لا قصد عد الذي قد عاز من شرف لأن ذلك أعيا كل مفتكير فكيف يبدأه خلق وخالق أجر امتداحا له في موكب سواره فكيف يبدأه خلق وخالق أجر امتداحا له في موكب سواره وهو السفيع الذي أبقي صفاعته عند الممات ويوم السعف والكدار يوم يفر من المولود والده فيه وعين من الأداء بالعذر يوم يفر خليل من مخالله يوم ترامي بالنيران بالشرار وذلك اليوم لا يغني بنون ولا مال سوى مخلص لله مصدجيره وذلك اليوم لا ينجو سوى ورع قد كان ضاد توبة لله منفجيره يوم تكون خفايا الأمر ساعرة لكل ذي سفع مع كل ذي نظاره يوم به يكشف الرحمن عورة شرك وعورة فسق وضي قدر يوم به يسر الرحمن عورة توب وعورة صدق وذي داري يوم يسير جيهنه صليب نهى بتوين العاد خلبي رب الملتعاد ولم يكلني للأحد في سفري وبلدي إلي خاد في السفر خلي وحبي بسفر مسخنيا عن النفر بجنده في خلدي لم ينهني مبارس وفيد ربي بارس إبليس لا يبارس جند لا حديث لم ينني من اعترات أو من لخلبه مرات ولي يقود في الخرائط ربي ما لم يجعلي الله كان لي بما يبقي سلالا سبما خدا ولي خوتم دماء خاد وخير رقدي هدية الله المعين ساق لخير اللعين واليوم بالله يهين من شاءه وفي خدي مد لي الله البصر بجاه سيد البصر ولي يمنح نصر لم أنه ما لم يفدي علمني الله الحليم مما يشاء من هنوم وزبخ لي بالكلوم منصرفا بسفدي ناجيت ربي الكريم بكتب ليست تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير سفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد فتى فتحا لم يرى خطوة حوض لا يرى لمن ياتي سيرا ردا مديم بسري فتابت حل يرى خط وعود لن لمن حياتي سيرا ردا مديم بسري خذ قاد خير المرسلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأكمل خدمة خير البشر ديني حب الله حما حب الذي العدا خما لي ولي جمع بلا سن أو كدري نفى لخير الضلال وما يوديني احتلال من للجنان بالحرام قد خادني بالخدي صفى بخائي كونيا خدي ممكن هونيا بمن ألام سونيا به عن المكدر رد السخاء والهيوب باق يعلم الخيوب لغير ذات والجيوب سينة حن التكدري هدم ربي بنا دري ونعم ربنا ومنه زاد خربنا خرب ردا وكرم اللب منه سكره ولي خاد سكره ولسواي مكره صاح وزان حرمي لله يمضي بسكور وإنه الهادي الشكور وسالني عن النكير وجالبات النخمي له صرفت همري وإنه محمري بلا أذى معمري ولا دواعي السخم إلى سواي الضراء كل أذى فاندراء وبيري من قرأ خير سواء لخم هد الذي قد سيرا عمري ردا وخيرا من قلبه تحيرا fi laahi muxibu sari jërëjëf jërëjëf sëriñ Modou Dia ci xas dagu am solo gi di ax babtu mu mel ne li ma leen doon junj rek ko defee ngeen waajal ko mu doon li nga xamante ne mooy tëj bi ndax li ñu amoon ci waxtu daanaka mel na ne mat na waaye ko defee ngeen fexe lool rek mu doon tëj bi bu ngeen daanelee nag incha allah kenn ku nekk sant rek wala mu nuyoo ko defee ñu mën a yëkkati jotaay bi kon bisimilah sëñ Modou. est du ko bàyyi mu kii rek ndax dama am erreur benn xasida guñ naan wasala mhm. bu ma ko jàngoon sëñ Massamba Gueye mhm. dama baaxoo nag saa yu may jàng samay jàng moo ci mujj mhm. kon sëñ Modou da nga koy may mu yëkkati daaj boobu mm. boo ko yëkkatee ba noppi nag bu ko defee bi ma lay wax ngeen mën koo mujjee incha allah rabbi kon mën ngaa woyalee sëriñ Modou Mbacke li xaadama baana wa ma lay seebin alamani ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلخي وزن للعقل من العقل المبين لي خادم بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلخي لم ينزاتي جالب النيران أو جالب نارين في الخسران لم تنني لم تنني لم تنوني درر نار الدنيا واقتسني الباقي بخير سنيا ملكني ملكني ملكني ما لم يبع عني وقادني بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني ما مماتا خنا نفوسا ولي سواي زاق تنفيسا إلى سوى نو انتهاء النوت نان نفوسه كلا بفوتي لم تنوني مخدمات الموتي وقال موت بالبقاء زوجي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما ناني جدل ترسي عن الموت بقاء لا أبغاني لا لوجه الله كبار يا باقي الممات سرمدا وببقائي يسر احمد كفاني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر احمد نفاني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ولا نفاني ولم يدرني ولا يدرني كلي علي ولا تزي عن الأمراض والممات بقى وعزمي من السمات علمني بقودي إليها البيت رافعا بي المردية لا شك لا شك laa sakka fi kawniya bil amini fi wa bil kitaabi wal amini laa sakka laa sakka laa sakka fi kawniya bil amini fi wa bil kitaabi wal amini. maanaam foofu dama fi taxaw maanaam Sëñ Tuubaa man ku ma jaaxal la maanaam biñ ma siy digg kuy jàng kuy bind. ci darajee xasaan ak busayri jamono yonent ba ba léegi mus ñoo dégg wax ne kafaani yal baaxil mamaata sarbada gën a féex bam ne ca faax sëriñ bi geesul xarnu bi kër yaa ngi wéet ba nekk tundum lal yan yoroon defi korong ña dooni wóor defi koyong sëriñ bi geesul xarnu bi tubaab yi sax perte nañu ña leen gëmoon it perdi nañu yahoodi it nañu yal nan yées ci xarnu bi ña tukki woon far nañu lang fun jublu de faleen falang addina yaa kanoo welaŋ sëriñ bi geesul xarnu bi naar yaa ngi yalwaan aka xaar seex bun xamoon nag dellu fajaar kenn talatul loo joxi naar waay mbàkke geesul xarnu bi waay mbàkke yuuxu nan ba dee wallunu boo yeexee nu dee melel ne kuy ràmm ku yaa nuy tinul waa xarnu bi yow yaay dunay muhammadu tayor nga sirrub ahmadu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 ta yokku ngam nga may njariñ wa xarnu be di serigne Moussa Ka jere jef serigne Modou Dia ci fal bi nga xamantene moy wala falu xarnu bi kon dañ lay jaajëfal rek wax deug yalla ci geek ak xamnañ ne xat nga rawati rawatina ku yor métier tayer ci waxtu yi waye nak eh, nga xamantene rek ci serigne touba nga ne kon dañ lay baye rek mu doon tàggoo bu dul tàggoo nga sant ñi nga xamante ne ñoom ngay sant bu ko defee yow ñu mën laa yeewi ko defee boo daanelee kàddu gi rek ñu jox sëriñ Modou Mbacke bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Baye Dam ñoo ngi amaan mbégte bu baax a baax a baax di dogalaan ngànt rek ndax yàlla dogal na sunu liggéey xaw naa des te itam dafa nekk loo xam ne dañ ko waxante woon ak nit ñi mm-hmm. war koo sàmm waaye nag jotewut ak dara jataa yu mel nii mhm. lu ma ci nekk lu mu xat-xat buñ ma woowee ci liggéey Sëñ Tuubaa dama koy bàyyi dem ci mhm. sama paree doog a delluwaat ci sama liggéey mhm. kon nag maa ngi sant yàlla bu baax ci jàppandal gi may jàppandal saa su nekk bu ma jógee ngir def lu baax mu ànd ak ndimbalam may sant bu baaxit it mbooleem koo xamante si nii yaa ngi doon topp émission bi di topp jataay bi ci Galaxy TV di sant bu baax mbooleem koo xamante si nii yaa ngi liggéeyee ci site bi waaye di la gërëm Baye di wax na it ñi ngi fasante ñi ngi gën a fasante sax kóllëre di ñaan suñu borom sàmmal ko bu baax ndax wax dëgg yàlla ban dalay déggante ba léegi saa su nekk ci lu ñuy dolli ak lu ñuy tax di gën a xemmeem liggéey bi lool rek nga ñuy wax saa su nekk it ñi ngi gis sa sa sa cofeel ci ñun sa yëg ci ñun ndax bu lii rek boolewuñu yëg-yëg moo ñu boole te yëg-yëg moo gën a foor te itam bu doon suñu jëmm rek mën naa ne sax loolu du ci am waaye xasida yu nekk ma waral ku ñu gis am ci ñun yéene kon dañuy sant Sëñ Tuubaa bu baax di wax ne li ñuy def duñ ci dara man bokk lii may def duma ci dara lépp sëriñ bi la ndax bu fekkante ne nekkuma ci amaane kenn du ma xam wala ñi may xam duñ toll nii kon sant naa yàlla bu baax di sant yi koo xam ne yaa ngi teew fii ci jataay bi di ñaan sun borom fekkee leen nañu ko ay déwéni déwéni déwén te at mu ñëwit dàq at mii te itam ñuy ñaan suñu borom defal ñu ci ak yokkute ba faaw nangul ñu di suñu jaamu yàlla sant gi ni sant Serigne Touba nak ci 18 safar bi wala kon ci wéram wi di wéru safar nga xamne mom mo waxone bu ñëwé nang leen na ngeen mako sant la yalla kon it ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaan lepp lo xamanteni liggéey nañ ko ci mo xam lu mu toll yalla nako serigne bi nangatu ful ko ta laqal ñuko fa yàq dul egg serigne Modou Mbacke ma ngi gëna a fasante yow ak kolere di la ziar ta di la jaajeufal di la wax na it bàyyi naa la xel bu baax a baax ci samaw yoon di sàkku ñaan bu baax ci yow di la wax ne jiital na la ngay ngay suñu jëwriñ mhm. di ñaan yàlla bu la dara fakkastal ci barkeb xasida yi jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Modou Dia dañ lay jaajëfal bu baax a baax a baax kon dañuy jox sëriñ Modou Mbacke moom it mu daaneel xasida gi nga xam te ne moom la yëkkati woon rek bu ko defee bu noppee ñu nuyoo ndax li ñu amoon ci waxtu moom daanaka mat na bismillah jàpp ci daam muy dëggi jàpp yàlla tudd mooy ngën gi tudd jàpp ci daam yàlla tudd turam moy ngeen gi tuddu yalla borom tuba di tuddu tur wa màgg na ngeen gi tuddu yalla mboon magna ku bëgg sel del sikar turam wi fikran kathiran day xaram meram wi di dikar fi dingri wa tafakuri ku ko saxuwaat naa ni dootul la sori waliyu kaamil moo ma dey turam wi ma di ko sikar ma dey turam wi ma di ko sikar ba janook melom moo ma dey turam wi ma di ko si kar ba jonook melom wi gis naa jëmam ja dégg wax ja wax ko moom it mu ma lam ma ma yëg ko waaye du tee manaa naa la borom Tuuba naa la waaye du tee manaa ko naa la waaye du tee mën a ko nam naa la borom Tuuba yaakaar ji soppu naa la xam nga ni man jooyu cofeel calaa saax xol bi tooy saa bët yi jooy tayaa tax barki borom Tuuba waaye sëñ bi lii moom gën naa kaweeti dañ lay ñaanal rek Mbàkke Bàlla nga yàgg fi lool te wér te liggéey bi ngay liggéey ci xasida yi nga dem ba làq ci ngërëmal sëriñ bi barke Seexul Xadim wax dëgg ndaw nga waaye nag teg nga sa tànk fi nga xamante ne foofu nga ko war a te it yi moom wax nañ ne mooy sëñ bi mooy jëmmi sëñ bi képp ku ci ta tegtalu rek maanaam biir nañu ne di nga àgg kon dañ lay ñaanal suñ borom dafa la tawfeex ak taysiir barke Xadim kon dañ lay jox rek nga tàggoog mbokk yi nga xamante ne ñooy teewlu seen télévision Galaxy TV ak mbokk yi nga xamante ne ñoom ngay sant ko defee nag ñu mën a yëkkati jotaay bi ndax liñ amoon ci waxtu mat na bismillah dañuy santaan yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ baax a baax a baax ci boole gim ñu boole ci jàngkat yi koy yëkkatil xasida yi ndax dañuy wax ci taarix ne sëriñ bi daa sàkkoon ñu koy jàngal xasida yi waaye it daa sàkkoon ñu ko koy yëkkatil kon bu ñu yàlla boolee ca ñi nga xam ne ñoo ko yëkkati duñu def lu dul santaat ci yàlla gën a dolli cant giñ ko cantoon ndax jàng xasida dafa am martaba ni mu amee ci wàlli yu yàlla yi ay martaba noonu la jàngkatu xes day amee martaba ki koy jàng nga xam ni da koy jàng nii rek ci suuf ak ki koy jàng di ko yëkkati duñu du ñu yem te yonent bi ne woon na man dalla ala xayrin fa lahu mislu ajri faale aw yiw moom ku ko tegtal rek day am ñi mu tegtal yiw wi lu ñu am ci tiyaaba da koy am te jàng xasida di ko yëkkati nit ñi di ko day am day am tiyaaba jo ci am moy tolok hadis bobu yonte yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. tayit di len sante bu baakha a baax màggal xi xadna waye waaye dam yow da nga baax ndax ginnaw bi suñ tubaa jàngaloo ba dafa am ñum lay bolel ci nit ñi ño xamni mëno dem bayyi len nyu mënuñoo dem bayyi la dang ci nyu ñi ñun ñun ñi ngeen am ñun yéen lañu am kon boo ñu soxlaa dañuy ñëw di sant waa Galaxy TV bu baax a baax a baax te di leen ñaanal bu baax euh, liggéey bi dem ba sori lool fu kawe seen njort te am nañ yaakaar mu àgg fa ndax Sëñ Tuubaa ko am fulla la itam ku mën a sot la boo ko leen mbiram dalay teel sa mbir ak ku mën a doon moo xam Mbàkke nga sant moo xam Buso wala Jaxate teel ko mbiram mu teel la sa mbir te it teel ngeen ko mbiram ndax li dong ngeen ko mënal ñun yëkkati lañ ko mënal yéen lii ngeen am ci ngeen ko mënal kenn ku ne domaine bi nga yëngatu ci ngay liggéeyal Sëñ Tuubaa te yéen yéen a ngi koy def yàlla na leen Sëñ Tuubaa dimbali yàlla leen Sëñ Tuubaa aar yàlla na leen Sëñ Tuubaa yëkkati ba ngeen yëg ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Amadou Fabal may ma àndal mhm. nga xam ni fu ma jëm dañuy ànd moom mooy sama wëllëre ndax bi may tàmbalee mi di jang normal ni rek mhm. du dëkkal ci sama nopp yi royal suñ bolle mhm. ak farlul ci li ngay jang der répété mhm. maam dama nek bëgg lu yomb da suñ juma dama dimbali ma mëna a roy rek da tok am ni buma ma daan dem ci bass man na jang ki jang ki jang ki jang ki bu mu jigi nak mom mom ma koy ayé naam ma del bayi lol del der roy kenn nit ci kon mang koy sant di sant tamit njabootu sëñ Balla gi ma bàyyi ko. Mhm, mhm. ci ci jiite sëñ Abdou Salam Mbacke. Mhm. di sant soxna Mariama bi di ko ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Mbacke Balla. wax dëgg yàlla ñaari cër dafa feeñ ci yow. askanu Mbacke geeg boole koog di yëkkati xas day waaye loolu lépp nag dafa di taw feexuk sëriñ bi kon bokk yi. lii mooy li nga xamante ne tey moom lañ leen indiloon tey seen jotaay waajal màggal gi di leen dox dox daje ci kanam tuuti ci yeneen plateau ci seen télévision Galaxy TV kon ñu nit ñu ngi wàcce foofu suñuy kàddu di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu الجميل خير صوت ولا يسوق للخصيل حجر الخضا والخضر رفعت كل السنين مغتربا أي سنين غبل وفزت بالفنون من مالك المقتدر برأني من التهم من سالني عن الوهم وجادني لي بمن بهم من خيبي المقدر يعصمني من الورى من لي أخذ الصورة والقلب مني نورا وسانني بالجدر علمني الله العليم مما يشاء من علوم ومن عضت صلوم ولا أذى المكبرين الله خير من شفع ومن حدا وكشفع ومنه جاءني شفاء من كل داء مخدرين لم ينه قلبي الضلال وما نحى جسم احتلال وذكر رب ذي الجلال على العدا كحيدري إبليس فر شاكيا إلى سواي باكيا مضارقتي كيا كل خرور فضري ولا العين مدبرة والزهرها سطبرة ولسواي أطبرة بكيده والحدري ولا لقيري كل من بارضني في السماء وخاد للباخي الأمان مع صفاء الخضر ولا لخير كل من بارزني في ذا السماء وخاد للباخي الأمر مع صفاء القدر لا لا وليس ينقذكني لي في منطقي لا شك لي أتي منك ضريء لم ينحسركم كالكلي وليس ينو الإفك لي في من لا شك لي سبحان ربك رب العزة عما يسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يرجف سرين مولجا تي خاسلو ام سولو كيغا خامتني مومغا باركلو كون دنج لا جوخ سرين مود مباكه بوكو دافي ياويت لاج بي داي ديكات تيو رك موي بون بغونا خام كان موي سرين مود مباكه لان غاني واخ سرين مودو بلا لولو dañuy nuyoo ba noppi ndax xam naa ne dañoo lay nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu sëñ nga xam ne daanaka daanal noo di sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax di wax ne dañu tombeek bis bu màgg bis bu tëdd muy tombeek 17 safar موي تومبك لي نتك سي غيناو موي سبب غيبتي ان الله اراد ان انا من وجاه وانا اكون شافعا لقومي وانا اكون خادما في الدوم موي تولك اجعل رجوهي الى قومي سعادتنا والتكفنا يوم الجمع الخلق نيرانا سن نك بنكو بغنا خمسة روت سن مودو sëñ Xaadim Mbakke sëñ Mut Balla sëñ Balla Joor sëñ Baaba Njéeme Moodu Xari sëñ Mbakke Maram loolu mooy sëñ Moodu sëñ Moodu ci tënk yow mën a wax mi ngi gane àdduna 1998 98 ci dëkk bii di Touba mu demee ci askanu Maram nga xam ne ku ci sant Mbàkke daanaka boo amee huit ans neuf dañ la yóbbu daara ñu yóbbu ma Njaay ma jàngi foofu bi ma fay ñëw Tuuba àggale fi nga xam ne daara yi Sëriñ Galas Njaay gi nekk ci Tuuba aslem ci laa bindee bind jóge fa dem Ndar jàngi xam-xam daanaka maa ngi doog ñibbis maa ngi doog a Ndar ñibbis ba léegi tamit maa ngi jàng xam-xam ci sëñ Mourtada Touré mii ci ginnaaw ndax daanaka mu Mbàkke moom daanaka boo xawee sant nit ñi dañuy séntu yow ci yow xam-xam daanaka mbooloo moo mën a dem mbooloo moo mën a dem yaay jiite moo tax daanaka faw day ànd akum njàng bu dee njàngum xasida mi nag moom suñ don boo xam ne suñ tubaab moo ñu ko bindaale ah, dañoo judd mën a jàng te sëñ Tuubaa dañoo dimbali du sëñ boole képp la roy suñ Tuubaa damaa dimbali ci mag ñi maanaam mag ñi mag ñi ko waroon ku ma ci bëgg roy mën naa la roy ku dul boole mën naa la roy waaw ah, kon loolu loolu sëñ Tuubaa moo ma ko dimbalee laa laata ngay jàll foofu sëñ Modou danga ñuy dugal keneen ci mag ñi koo xamante ne allahu rabbi ndax am na boole daa am delluwaay mm-hmm. delu waye moy seigne tonga cham hmm am seigne bi bim jugee jugut jug jang jang am jangam da jaar ci seigne tonga maa donga cham maa donga cham moy wa xamna turu do ko xamé waye jangam boko ko nang ko xamé ndax liñ koy tek bari na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وصلى أبدا على الذي بلا هدى أبدا سيدنا محمد والآله وزعبي سوي النوال الوالي هذا وإن اليوم زوت وزلي لو بأسماء ذوي تفضلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نظم يا ذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم رب بنوء وبإبراهيم لقل ذنوبي وقن أجيما وكن بموسى وبجاهي ذا وقيني دنيا وأخرى بوزا وبمحمد رسول الله عليه غير صلوات الله ثم عليهم لياب إيمانا قد زابا ما وليزانا بغرمة صديقي والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان حق النورين وبعلي والدي سبتيني أبلي في الدنيا يا مخايا النور والنور والمزايا بعقد الأداء وبزبيري وعقزاد النجني من ديري وبزيد وابن عوف النجني من كل ما أقاه من فتن كوك موي نونغو سين بولا دا ام فوم جوغي جميع jamiul قاتبه qaatibatan lisil jalaali fa في العذار يوم تقول جميع الرسل والكرماء نفسي سوى المنتقى المختار من مدار يوم تقول جميع الرسل والكرماء نفسي سوى المنتقى المختار من مدار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 ku la gis ni ngay jàngee xam ne wax dëgg yàlla coono geeg lépp mu ngi fi waaye nag nit ki boo xamul na nga koy def rek na mu la tax te wax dëgg yàlla yëg gi ngeen yëg ne ay élément sëriñ bi ngeen ci xasida yi ngeen koy liggéeyal moo rek saay buñ leen woowee rek mu doon lu jàppandi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax kon sëriñ Modou Mbacke euh, laaj bi may ñëw ak yow mooy wax nga ne ñi ngay roy dafa bari waye kan si moy ki nga xamantene ne daanaka moom nga ëpp ci ay dajam loy jang ak lan nga ñu ci indil ci ab dajam jamono ji nak mhm. sëñ bolle mhm. ndax li tax ma gënte sawar comme lim mu ko waxee sànq mhm. sëñ bolle bokk ni ci jàngkat yi gën a naqari ci yoon wax li dal gi dalu bolle maanaam di jàng te fa muy jàng du buuse mhm. sëgg nii rek desandiku nii mhm. Mhm. daanaa roy ñu bari waaye ku mel ni sëñ Fallou ma lay toog nga xam ne soppe soppe bu sëñ Balla la da bu ma daan toog di jàng danaan wax bàyyil ñi ngay roy te nga dem roy sëñ Balla lu ci bëri suñu waa kër man ñi ma dëkkal ñoo ma ci poussé ñoo ne ma bàyyi ñi nga rey te dem roy suñ boole te it rëccuuma ko eh, lii ma ci bëgg daal mooy nit ñi ñaan ci ndax dafa doon dafa doon ko naqare roy mm-hmm. maanaam boo amatul muñ mm-hmm. mënoo ko roy faw nga ci dooleel mooy moom am njàngam mm. dafa yàlla we te daray àdduna dar daray àdduna raxu ci moo tax bu la suñu borom dimbalee nga koy roy mm. fay ki nga xamante ne moom nga ciy séntu rek mooy fayub sëriñ bi. Mhm. lu ne nag mën naa ñëw. waaye bu mu la tax a jóg xamante ne. am nga mboolem lu mën a ñëw rek. Mhm. fayub sëriñ bi da koy faw fa kon naa la bàyyi nga woyalee sëriñ bi. moom day moom ci jëmbi boppam. Mhm. fi mu ne nii boo demoon nii boo ko doon roy. boo demee toog jàng. lu ci jub. dana la wax ne liy jub na. lu ci jubul dana la liy jubut. maam ñi koy roy bàyyiwu leen rek. ñuy dem nii man ñi ma jàngal samay rak siñ boole moo ko naan jàngal comme ni wax day jàngal alquran siñ boole bi wax ak yow nii normal wax wolof nii rek day génne jëm a jéem a génne maxaarijul xorof wolof buy wax nii rek da xam ne kii wax dégg na maxaarij maa ngi koy fàtte fàttaliku bi doomam ji faatu Muhammad yàlla na ko yàlla xare aljana bi ñuy dem ci denc ba sëñ Moustapha dañoo dafa taxaw bi mu ko koy wax daf ne ko Moustapha Muhammad moo wàcc ab liggéey maam Moustapha moom li ko yëm mooy sëñ mboole buy wax ak yow maxaarit bi day génn xam nga kooku dana naqare yi ci jamono bépp surtout nag comme li sëñ Modou wax nga xam ne danga nga koy roy ci jikko yi ci maanaam ci toogin bi ci waxin wi ci dal gi day metti foofu nit ki amul muñ doo ko mën a roy taf day laaj ab répétition bu métti suñ mur boo ko déggee muy jàng nga xam ne ku répété suñ boole la da koo répété ndax masrabu shafi bi mu jàng ni mu ko jàngee version yi dañoo bëri version masrabu shafi ak version ataba dañoo bëri am na ataba boo xam ne ba nu mu tuddee bàyyi ndongo càmm la tàmbaliment bi bu duggee rek da nga xam ne kii bàyyi ndongo càmm la waaye am na beneen version tamit boo xam ne xam ne it ah. ko waaw ah. bu mu mujjee jàng nii mooy version bu mujj bi waaw ah. bu njëkk ba nag bu jàngee da ngay xam ne kii suñ ndongo càmm la bu dee dégg nga am njàng mhm. bu tàmbalee rek da nga xam ne suñ ndongo càmm mhm. ba ci am na ay RM yu may répété yoo xam ne bu ma toogee kër ga bu ma ne leen kii kan la mhm. duñ mën a xam ku mu doon dañuy jàpp ne suñ ndongo càmm la fekk na du moom suñ boole la waaye yooyu ensin ancien ancien jàngee ancien son yu yu yàgg yi la mhm, mhm. mais bu dee yii mu génn mhm. sëñ bi boo ko déggee muy jàng nga xam ne kii li muy wax da koo répété jékki-jékki wut mel ni man taqale di wax <laughs> taqale wut di wax li muy wax da koo da koo da koo da lii da koo déglu loolu daal moo moo loolu daal moo ma neex ci moom lool maanaam dal gi mu am ak boog bo agge yitte jim lay jox mhm. yow mi koy roy mhm. yitte jim lay jox mhm. dim lay delawat ak conseil yim ci tek ndax simbolé mëno ko roy ba paré di jang ngir dara boko roy faw da ngay jang ngir yalla jang ngir yalla dong nga mëna simbol. Pas ke limi parce que limi jang ci xol bi lay jóge motax version yi duñ bok xam bu don tolole. xamni day japp ben air chaque jour mu ko nim ko dan waaye jàngee xol bi moo tax chaque jour version yi dañuy dañuy dañ duñ bokk tey mën naa ñëw rabbiya bi mu rabbiya bi mu jàng barakatu bi mu jàng barakatu répété am na bu ma répété woon bu njëkk am na bu génnaat ñaar yi dañoo am différence bu bëree bëree bëri moo tax roy ko roy ko xaw a métti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 وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وظل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بحادي لمباح وبصره بحاء وجميع أعبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين أطاب للممرك الأوطان باغنا سليم من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم مالك الأزمان فطاه منسوماته الفتاح بالمصطفى سماته المفتاح بان لكل من لا صلاح أن امتداد عن ينتقى فلاح آيات أحمد عود كتب من أوائل إليه البرايا والزمن نبينا الماء مع كل عزم عنا كما قبل منا ما تزن محمد صلى عليه ذو القدم تسره مني دوام للقدم أحمدنا المختار كف ضررا لغير نحوي أبدا والقرر أبقى من ربنا المقدمين على رسوله والنبي المفضل إن النعم لا جميع درجة وخلقا تسليم رب العالمين سرمدا على أجل العالمين أحمدا يمن بن عبد الله قاد البركات لسكنات الأصياء والبركات هدى أبي القاسم نور صدور تنوير مجلس كفاني الباخل الممات سرمدا من يلا فقل نما دوت مخاف كل نفس دائقة الموت يلا وقت القرآن سنتو بعد تيجي جنة بابم استثناء لك مم تيجي جنة بابم تيجي سنتي بابم دفاع أبدا موتا tax xasida fu ma nekk maam euh, kenn du moom te it wax na ne lii ku mu daal ci xas day rek euh, mën nañu wax ne am nga cër ci sëriñ bi kon sant rek sant rek kon dañ lay jox rek sëñ Modou nga wéyale ko defee nag moom daa am fu mu toll rek te mënta ñàkk kon mën ngaa wéyalee rek sëñ Modou sëñ Modou sëñ Modou Dia. waaw mhm. mhm. ah, jërëjëf. Mhm. sëñ Baye Dame xam naa lu jiite ñu yëkkati sax dañuy amaat ak yëg bu baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba. waaye di ñaan sëriñ bi nangul nu ko. te itam yàlla buñ ci gis suñu bopp. amiin yàlla na ci seytaane sori. jataay bi yàlla na doon jataay bu yàlla gërëm. yàlla na bokk ci jataay yi nga xam ne sëriñ bi da koy nangu. kon xam naa bu ko defee dafay mel ne euh, dañoo war a delluwaat ca mhm. liggéeyu liggéeyukaay ba mhm, mhm, donte yàlla dogal na sax li ci des bëriwut waaye comme que waxtu waa ngi dem liñ bëggoon rek bi ñu ko mayee mooy ñu tëjee ko waaw ci suñu jànkat bu mag boobu nga xam ne bi ñuy tàmbali ñu ngi la ko wax muy Baye Mama Ndiaye ci xarnu bi yaakaar naa waaw su fekkente ne may nañu ko ñu tëjee ko rek mën nga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 sëriñ bi noo ngi lay deeti ñaan faqir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lun la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi bi noo ngi deeti ñaan faqir nu lépp lun la ñaan ndax noo ngi dagaan nag ci Moustapha mi nekk marwata safa ak àqi am dil Moustapha mi yàlla jébbal xarnu bi ak àqi mbooleem ay rakkam ak àqi seen bàyyi ñoom ak àqi seexi Bamba am ndax yàlla naatal xarnu bi mbooleem murid yépp a ngi tuub tey reccu bàkkaar yi nu juub balu nu bay bay du nu góob sëriñ bi geesul xarnu bi mbàkke da ngay boroomi mbóot tasak jabot tawat gi loot ñu def ma ab antal pareet may poto wa xarnu bi amma maqamam maqaamam di la woo waaye murit ne tawatal te bunu wo sawla miñay wo xarnu bi tay ji ma wax ba ngir yaa ma def antal pare, ya fa bi xam-xam ne yari ci sama xel ci xarna bi te bul ma tankam lu ci ñaan ngir lima bon tay ki ko ñaan murid yi yep la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarna bi joy perantal lanu bonu fa nu fobul leenu ne woy ku nu yafal ban defi koy mu dellu tal xarna bi gisunu yaay te no ngi raam ku ñak yaay day nàmp maam bural te bonu ngalla daam roggandi mboolem xarnu bi fobal sa doom yi yépp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku munta boot nga jox ko mboo ndax yàlla naatal xarnu bi te fob murid yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo tollu dolli seen alal ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla bil Mustafa tabax jumaay Mustafa bam tolne ne marwata ak safa ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem murit ngi joy ngir lu bay mu daal di gooy ba seeni adiya ngi boy sarax lu naatal bi jamono jangi ngi khif luñu lu togg bar gi ne ko fuf cheikh bamba nel gën gi mbindef mu dellu naatal xarnu bi mag ñi gor su ndaw di joy xif taxna na yenn tool yi booy bi geesul xarnu bi taxna na ña daa joxe ngi laaj ñi japp seeni sas di xaaj dootu dem fenn ba waaj serigne bi geesul xarnu bi bekkoor bi taxna xol yi tiit bàkkaar bi taxna na cëri tuut gi taxna keri këri serigne bi geesul xarnu bi sa dem gi taxna ñepp joy newet yi sax ñu toy leg leg mu wor ba tool yu gooy sëriñ bi geesul xarnu bi xam na ñaayaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xarnu bi ma yërmandeenu daa defal lu xel dajul daanu defal daanu tibbal daanu leel reggal nga mboolem xarnu bi sa yërmandeenu daa sanal jigéen ñi yaanu daamal tay ñepp a yam kenn amatul sëriñ bi geesul xarnu bi ñi seeni sag saggi kuna ñi seeni ga daggi kuna ñi seeni gëm kuna ngir ñak gi ci xarnu bi an mo ne ndax moy tane daaw muy gëna far delu gënaaw barab yu ay sax dinaaw ay mbàkke geesul xarnu bi wuy no wuy no ko torox yelwaan amoo la sarax garab bu daano xob ya lax bamba nga xarnu bi garab gu mag bu dee jirim garab yu ndaw yi day jirim meññen ma say mbir ma alam lii rekk nal xarnu bi allahu akbaru samaan jamano moo safaan xéewal yi daf daa walangaan ci ndabi mboolem xarnu bi li béeg keeki sax lan daa di woo muy walangaan nuy xelli kopp yi wa tey korne xarnu bi astaxfirullah asiim tub nannu lan daa defi koom te muy lu nee xuloon borom jurbel a xarnu bi xéewal yii daf daa walwali baawaan ci nun di kelkeli moo tax ma jóg di mbel mbeli sëriñ bi geesul xarnu bi xéewal yi daf daa walangaan wax seen nga wute nga ak sa yaan xamoo xurak tund ak sa yaan sa ndoxanaatal xarnu bi wàcc nga yow loo ma sa wax def nga ko jox ku ma jox daa woonu max daawunu cax sedun nga mbollem xarnu bi gàncax gu ndaw gi wedatul mag ñi nga yor kenn wodatul motax manala ma naa li ci xarnu bi njëmbat lii gaay ne won dawe ci xewal ya fi won tay ñi ngi def yañu bawon ngir ñak gi ci xarnu bi ak ñak bon ci waju bax day tas xolam ba jaax ci bu tay nga jaaxal na gaay xarnu bi léeg-léeg nga gis fii am murit muy taxawaalu ne mariit wala mu xacc def tariit ndaw njombe gaay xarnu bi ànd ak yi di jaay ñii di wajaa séri baxaay te xam ne yaa doon seeni baay moo te nga naatal xarnu bi ñi a ngi xacc defi seef ñii defi dak ngir bañ a loof ñi daw baraw ba neenu fiif moo te nga naatal xarnu bi yow la nu yaakaar abada ngir yaanu tàggaleeg bi daa tum nan mboolem la nu daa bàkkaar njëkke ci xarnu bi yërëm nu tey yaru nanu dootu nu foog xàmmee nanu dootu nelaw yewu nanu yërëm nu naatal xarnu bi soo nu joxoon nag lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yëgoona yaru nanu ku weddi laajal xarnu bee yërëm lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu soppiku nanu jébbulu nanu sarax nu naatal xarnu bi ñun tuxu nan sun baay gàddaay def la ngeen ji baay tuubaa di kër bambaa waay sëriñ bi geesul xarnu bi murit yi saalin nañu ren ngir xam ne yaa leen ame woon yaa leen joxoon la yoroon yóbbu nga mbooti xarnu bi tiijaan yi rëccu nañu tey xam nañ na béy du sóoru yaa a may nit lu ko doy moo te ganaatal xarnu bi bawal bawal jolof-jolof mboolem pëlëg naar ak kenn gisatul ku am yëf sëriñ bi geesul xarnu bi koo xam ne daana ami jaag daa ami angaar ak ki juub mi an am déwén mu jeeg sëriñ bi geesul xarnu bi ku ma am ñaari wata soxla na ren ñaari mata te munta am njëgu mata sëriñ bi geesul xarnu bi boo xam ne daana am i taax tey mi ngi ne ngéejum néeg bu baax